جنك حسين تمك حسين بمجت بتاخل ابن حقيل مسلم ابن حقيل تيمريكو واخني كو نيوال تا غناو بي لي خيو لب خيو موي راي دي راي مسلم ابن حقيل تا حسين يغو سي دارا ني دوغو رك تي دم mu génne màkka ci bisu ak tarbiya muy bisu juróom-ñetteel ci bisu juróom-ñett ci weeru tabaski bi jëkk ñuy rey muslim ibnu xaqil ci benn bis rek ndax muslim ñu ngi ko rey ci bisu arafa nit ñi bi ñu yëgee génn ko Xuseynu ñu am ci tiitaange lool wattandikuloo ko it génn bi boroom xalaat yépp te am ci moo cofeel lañu ko jox xalaat mooy bu mu génn dem iraq lañ ko digal mooy mu toog ci màkka ñu fàttali ko li xewoon diggante baayam ak waa iraq la xewoon diggante xasan magam ak waa iraq wax nañ ibnu abbas radiallahu anhu dafa wax ni fa ñëw ci xuseyn ni ko nit ñi dañoo siiwal ni dangaa bëgg a dem iraq dama bëgg nga leeral ma loo bëgg mu ne ko waaw dogu naa ci demte ci benn ci ñaari bis yi insha allah ibnu abbas ne ko damaa bëgg nga leeral ma boo fekkee ñoom bi ñu lay woo dañoo rey seen kilifa ba noppi dañoo rey kilifa bi ba dàq seen noonu ba noppi ba takk seen biir door laa woo bu demee noonu di mën ngaa dem waaye nag bu fekkee seen kilifaa nga fa di dund sax fa not leen ay jaraafam di lijjanti réew yi bu ñu la woo it dañu la woo ci fitna akub xeex bul dem man de ragal naa lool nit ñoo ñee ña la woo ñu ñu ñu ñu ñu ñu xëcc leen ci seen bopp ba def leen sax ñu doon ñoo xam ne ñooy xeex ak yow ña la la ak cofal rek boo wutoo ñëwee wala ci dal ci sa kaw ci pexe yi kilifa yooyu. Ousseynou ni ko dal dina def listixaar xool ba xam lu muy gis Ibnu Abbas génn ci ëllëg mu ñëwaat benen yoon ni ko sama dogu bay man de jéem na ma jéem jéem jéem a muñ waaye am man de tit na ci yow lool dem bi nga bëgg dem waa Xiraaq ay warkat lañu bul kini ci ñoom te nga toog ci dëkk bii ba waa dàq nga dem fa dàq suñu noonu nga dem fa bu fekkee mënoo ñàkk génn te nga dem yaman yaman ay sañee nga fa ay xure nga fa sa baay am na fa ay talib nga beru di bind bataaxit nit ñi di yabal ñi ngay yabal ñuy woote yaakaar naa boo defee loolu de li nga bëgg danga ko am te coono yu bari mën na ci ko ñoom fa sey ni ko yow sama doomu baay xam naa ni day danga may laabiire xam naa ni it ko am ci man ak ñaanta ak defan waaye nag dama dogu ci dem ba noppi mu ne ko bu fekkee mënoo ñàkk dem rikk waaye bul yóbbaale sa njaboot gi bul yóbbaale xale yi ak jigéen ndax man de ragal naa ñu rey la nañu reyoon asmaan ay soxnaa ma ko doonam di jàkkaarloo moom di ko xool ginnaaw ci yàlla bu ma xamoon ne bu ma siiwee ci sa kawar gii ñu ni kër tëm fii nit ñi duñ ma xeeb xeeb la te su ma ko defee nga topp ma ci li may wax danaa ko li ko waaye nag xam naa ni mën ngaa seral rek xolu ko Ibnu Zubayr ci bàyyee gi koy bàyyee Hijaas dem seen daa di génn bi mu waxee moom loolu moom Ibnu Abbas dafa daa di génn dajeeg Ibnu Zubayr ne ko Ibnu Zubayr sa xol sedd na ndax Ousseynou ngi nii di génn jëm Iraq bàyyi ak Hijaas li mooy li ko Ibnu Abbas Ibnu Umar radiallahu anhu mi ngi woon Màkka bi mu déggee ne Xuseyn mi ngi waaj a dem mu dab ko wax nañ ne dab na ko ci doxub ñetti fan ne ko ana foo mu ne ko Iraq waaw mi ngi yor ay bataaxel yu bari ni ko seeni téere seeni bataaxel seeni lekkara ngi suñu jaayante yi nii mu ne ko bul dem waaye Ousseynou bañ rek gàntal ibnu Omar ne ko déglu ma wax ma nettali la ab xadis jibril ñëwoon na ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam tànn loo ko diggante àddina ak alaaxira bi tànn alaaxira bëggul àddina te yow di aw daggit nga ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam naa ne giñ naa ci yàlla ne kenn ci yéen du méngoo xilaafa gi mukk abadan yàlla li tax mu dox seen diggante moom mooy bëggal leen lu ko gën waaye mu bañ a deltu gannaaw daal di lëngoog moom daal di jooy ne ko dénk naa la yàlla dénk naa la yàlla waaye nag néew bu ñuy dénk yàlla rek la dénk naa la yàlla néew bu ñuy dénk yàlla néew bu ñuy dénk yàlla abdullah ibnu amr ibnu as ba mu déggee demuk Xuseyn dafa ne Xuseynu dafa gaawe dafa yàkkamti ab diggam daal ni su ma ko jotoon de duma ko bàyyi muy génn mukk te def ma not ndax ci banuy Haashim la mbir mii tàmbalee woon te ci lay jeexe saa bu ngeen gisee ku bokk ci banuy Haashim ku moomati ku yëlifati rek na xam ne àdduna jeex na abu said alxudri radiallahu anhu ni xoseen yaa aba abdillah man di damay leen laa biir te kon ci yow ak ñëwante la dama dégg ñu ne waa Kuufa dañ laa bind leetar di la woo bul dem dégg naa sa baay di wax ca Kuufa di wax ñii di yokkat naa leen bañ naa leen ñoom itam yokkat nañu ma bañ nañu ñii de ak matale du bàyyi ko ci ñoom matale couleur du bàyyi ci ñoom mukk ñii de ku leen gañe it gañe nga cër ba yées ci cër yi wallahi amuñ yéene amuñ ak dogu ci dara mun ñoo muñ it des ñooñu la ko abu said al xudri yi waxe moom itam tere ko dem gi jaabir ibnu abdullah tere na ko dem gi said ibnu musayab wax na ni useynu day bu génn toon moo gën abu waqid al laysi noonu abu bakar ibnu abdurahman ibnu alxaaris ibnu hisham ñëw ci xoosen ni ko yow de gis nga eh, waa iraq li ñu defoon sa baay defoon ko sa mag xasan waaw nga bëgg a dem ci ñoom waa iraq jaami àdduna lañu maa ngi lay fàttali yàlla ci jëm ci sa bopp mu ne ko yal yàlla fay waaye nag lu yàlla atte loolee day am Abubakar ni ko inna lillahi wa inna ilayhi rajiun Abdullah ibnu Jaafar bind ko ab bataaxal di ko wattandikuloo waa Iraq Useynu tontu ko ne ko dama gént ak gis yonente bi salallahu alayhi wa mu digal ma mbir ni du ko wax kenn te du dama caa taxaw ba nag Umar ibnu Amr ibnu Saïd ibnu ki nekkoon ca ka doonoon naa it ca Makka ak Madina moom itam bind ko ne ko dama dégg ñun dangaa bëgg dem Iraq maa ngi lay muslul yàlla ci ak naayoo Ousseynou tontu ko ko bu fekkee sa lettre bi eh, njëkk rek nga ci ak jokk ma yàlla yàlla fay aw ci àdduna ak àllaaxira waaye nag naa yedd kenn kuy woote jëm ci yàlla di def lu baax doon ab jullit bu leer di ngaayoo moom amut kenn ci yàlla di def baax doon ab jullit bu noonu Xuseynu yónnee Madina ngir na woyof ci Bani Abdul Muttalib nañ ñëw ñëw di fukki nit ak juróom-ñeent ak fukki góor ak juróom-ñeent ak i gone jigéen yoo xam ne ci ay ñenn ñi ay mbokkam lañu ñenn ñi ay doom yu jigéen lañu ñenn ñi ay soxnaam wax nañu ni bañ génnee Muhammad ibnul Xanafiya dam na leen rakkam doomi Seydina Ali wax Xuseynu ni ko man gisuma génn génn sama xalaat génn bi nga génn dem Iraq man ànduma ci waaye Xuseynu dëkkuñ ak moom ba Muhammad ibnul Xanafiya dafa tëye ak njabootam yabalu ca kenn mu ànd ak Xuseyn ba Xuseyn sax am na lu mu ko ci jàppaloon ni ko yow daal say doom ñoo la gënal sa doom daal nga tànn say doom nga tànn fu ñu ànd ak man ci béréb béréb bu ñu war a rey yow say doom say doom ma gënal mu ne ko déedéet ajo woowuma ñu di la rey di leen rey ak doonte sax ñu rey la mu ëpp fi ñun lu mu mën a doon waaye nag ñu boole leen ñu boole leen di leen rey amalu ñu benn njëriñ mun la Xuseen génn jëm Iraq ànd ak njabootam ànd ak lu ma juróom benn fukki nit ci waa koofu ñu ànd ak moom loolu mu ngi eh, doon bisu eh, ak tarwiya ci juróom ñetteel weeru zul hijja ci atum juróom benn fukki ci gàddaay Usayd dafa daal di wër kaaba gi dox Safa ak Marwa daal di wàññi kawaram daal di yeewi ku ci umraam daal di jublu Iraq nag booba nit ñoom ñu ngi jublu jëm minan moom mu jëm iraq jël nañ ci Uqba ibnu Samaan mu wax ni Xuseynu bu mu génnee Màkka ndawi Amr ibnu Saïd ni doon kilifa Màkka daf ko dogale dañ ko dogale booba Yaxya ibnu Saïd mooy seen moo leen jiite ñu ni ko léegi wëlbatikul ana foo jëm mu làng mu bañ daal di wéy ba ñu xëccoo ba dóorante ay yar ak yat daal di terewu terewu gu dëgër gu diis Xuseyn daal di wéy mu woo ko ne ko yow Xuseyn ndax doo ragal yàlla ndax ci mbooloo mi xeetu yonent bi ginnaaw bu ñu ah, dafa daal di tawil aaya bi rek ne ko lii amali walakum amalukum antum bari'uuna mimmaa a'malu wa ana bari'un mimmaa ta'maluun maag sama jëf yéen sama jëf dañ ngeen ci li ma nekk waaye ma itam dañ naa nag ci li ngeen nekk wax nañu ni Xuseenu daje naag faras dàq mu laaj ko léegi nit nit ñi ci nekk faras dàq ni ko xoli nit ñi de yow la ñu waaye seeni jaasi nag ba ñu Umayya la àndal Xuseynu daal di jàll waaye xamul dara yëgul dara ci li xew ci rey bi ñu rey Muslim ibn Aqil muy def nag ndox yi arab yi ndox moom ci romb rek mbooloo ñëpp topp ko ci yoon wi la daje bataaxel bi koy leeral ni ko rey nañu Muslim ibn Aqil bi mbooloom Xuseyn moom yi déggee ni rey nañu Muslim ibn Aqil banu xaqee dañu daal di jóg nu ni wallaahi duñu dellu te jotuñu suñu deret mbaa la suñu mbokk mos ñu mos ko la wéyee ba dem ci béréb bu ñu wax Xaajar foofu la taxaw ni leen kat euh, sunu parti bi sunu chia yi kat war nañu nu ku ci bëgg a dëpp ci yéen mën ngaa dëpp te dara du ko ci fekk dara du la ci fekk nee na mbooloo yàlla sabe saalo li ak càmmoñ mboolem ñu ñu ko topon japp ni dafa jëm ci ci eh, lu takku lu leer nañ dañu dal di depp ba ña àndoon nak mom jóge màkk kep ñoo fa dess bi fajar jotee mu digal ay xale ñu root ci ndox ni ta baril ko nonu la ni jalle ba ag ci béréb bi ñu wax siraf siraax googu fa daje ak euh, arme yi ibnu ziyaat junni junni faris junni ñu war junni ñu war ñu ànd ak ki wax xar ibnu yazid kooku moo doonoon kilifa kilisay Ubaydullaah ibnu ziyaat mu doon muxaddima arme bi nga xamante ni moom moo mooy mooy jiitu si ci arme bi nga xam ni moom la Ibnu Siyaad ñu ñëw ba jàkkaarloo ko Ousseynou ci waxtu tisbaar Ousseynou ñu ànd ñu ngi kaalaw ràngoo seeni jasi Ousseynou digal ñu mu àndal ñu ci ndox mi wëgg seeni fas wëggaale fas yi ñee nga xam ni ñooy seeni noon yi jàkkaarloo bi waxtu tisbaar jotee Xuseynu digal benn waaye mu noddu euh, bi mu noddee mu génn mu ngi euh, sol benn ñëgg làmbaayu taraxlaayu dafa làmbaayu waaye sol ñaari dàll ñëw xutba nit ñi boolu leen ñun ñëpp ay ànd ndoom ak i noonam mu xutba leen daal di leen di balu àq ci ñëw gii mu ñëw amal leen yët ni leen waa Koofa kat ñoo ma bind bataaxal ni amuñu ñoo bind ay bataaxal ni amuñu ilimaan amuñ kilifa euh, ni ma soo ñëwee dañuy jaayante ak yow xeex ànd ak noonu ñu taxawal julli gi Xuseyn wax Xar ibn Yazid ni ko ndax dangay julli yaag sa mbooloo Xar ni ko déedéet julli ñun ñu julli topp ci sa ginnaaw Xuseyn moo jiite ñaari mbooloo ba mu noppee dugg ci ab xaymaam ba waxtu takusan jot mu génn julli takusan xar ko waaw man di dama xamul bataaxal yi ngay wax moom yomu mu doon ak ñan ñoo ko dund Ousseynou génnee jalu téere teg ko ci kanamam mu tasaare ko xool jàng ci ab lum daal ne ko ñun bokkuñu ci ñi nga xam ne ñoo ko dund bataaxal yi ñu daal li nu digal mooy bu ñu dajeeg yow ñu bañ a tàggoo yow te dañ laa yóbbu ba cek kanamu Ubaydullah ibn Ziyad Seyni ni ko nag al mawtu adnaa min zalik li nga wax nag dee ko gën a yomb dee moo gën a yomb nga dama yóbbu ci kanamu ibn Ziyad Seyni wax ñi mu àndal leen war leen ñu war jigéen ñi war ba mu bëggee dëpp ñu dox digganteem ak dem Ousseynou wax xar ne ko sakilat ka umuk ni ko ana loo bëgg léegi xar ne ko man kenn digal ma xeex yow waaye dañ maa digal ni su ma dajee yow bu ma tàggu yow te du dama daay yóbbu koofa fa ci ibnu ziyaad bu fekkee bañ nga nag kon dangay jël weneen yoon woo xam ni du la yóbbu koofa te du la jaloo Madina Xuseyn yoon yoon woo jar da ko toppee euh, Xuseynu jël wetu càmmoñ xarru di dox làng moom di ko wax ni ko Xuseynu maa ngi lay fàttali yàlla ci sa bopp ndax maa ngi lay waatal ni boo re boo xeexee dañ la de Useyn ni ko dee képp ci nga may tiital ade wax bayit wi muy sa am bay wa ma bil mawti aarun ala alfata ida ma nawa xaqan wa jahada musliman ni ko dinaa wéy ndax dee moom du gàcce ci nit bu fekkee dëgg la yéene te jihaad doon ab jullit wax nañu ci guddi gi eh, dafa gëmmeentu ba bopp bi lang mu yeewu moom Xuseyn mi wax ni inna lillahi wa inna ilayhi rajiun alhamdulilahi rabbil alamin daal wax ni damaa gis benn gawar bu war aw fas di wax ni nit ñi de ñi ngi dox waaye dee gi mi ngi dox jëm si ci ñoom ma xam ni suñuy bakkan lañu ñuy tàgge lañu ñuy tàgge noonu ca ëllëg sa ca suba sa la Omar ibnu Saad ibn Abi Waqaas ñëw ànd ak ñeenti junni gawar ñeenti junni nit ci ndigalul ibnu dañuy wax ne dañ ko waajalaloon ab armo mu jëmoon ak daylam bi mbirum Xuseyn dikkee la ko ibnu jox ndigal ci mu dem ca Xuseyn bu noppee ci ay ci moom nag doo ko dem ak daylam waaye wax nañ ni euh, Omar ibnu Sand sàkku na mu jéggal ko waaye mu ah, ibnu Ziyaad bañ ni ko ba la neexee daal ma jéggal la te fonni la kii fépp du la fal dara léegi muy ko may ma diisoo ak samay mbokk waaye comme diisoo la kooke ni ko folliku ci pale pali àdduna yëpp de moo gën ci yow ngay taq ci deret Xuseyn folliku ci pali àdduna yëpp moo gën ci yow ngay taq ci deret Xuseyn ku mu diisoo rek mu tere ko Ibnu Siyaad xëpp ko tëkku ko ci folli gi ak folli ko ak ray ko ba tax mu ñemewuta bañ a dem mu di dem moom Omar ibnu Saad ibnu Abi Waqaas dem dajeeg moom ci ab béréb daal di yónnee ay ndaw ci moom laaj ko ne ko lu la fi indi Useyn ni ko waa Kuufa ñoo ma bind bataaxal ni ma ñëwal waaye bu fekkee bañ nañu ma ma dellu Makka bàyyi leen Omar ibn Saad ba mu déggee wax jooju dafa wax ni ndax yàlla musal ma ci xareek moom daal di bind ibnu Ziyaad loolu yi wax ko ko ibnu Ziyaad ni ko doxal diggante mag ndox mi ni ñu doxe woon digganteem ak Usmaan mañ reyoon te tooñ ko mu mel ni kon foofu feeñ na fi rek delloosiwaat euh, mbokk Usmaan bi ak xew-xew ya ca amoon mel na ni yeesalaat na ko foofu yi ndax dañu ko doxal diggante ak ndox mi nañu doxe woon diggante ak ak ndox ma te nga wax Useynu mu jaayante moog ñi ànd ak moom ñu jaayanteeg Yazid ibnu Muawiya buñ ko defee ñu xool li ñuy xool wax nañu ne Xuseynu euh, sàkku na ci Umar ibnu Saad moom mu nekkoon na ko bàyyi waaye dafa mel ni loolu ci xar la ko jëkkoon a sàkku ne ko mu may ko mu jàll ci Yazid mbaa mu may ko mu dellu Hijaas mbaa mu may ko mu dem ci benn post ci poste yi xeex fa ak yéefar yi ba lu yàlla dogal ci moom waaye Haarun ibn Yasiid nangu wutoon d'accord loolu nangu wutoon d'accord dara ci loolu waaye nag benn la Ubaydullah ibn Ziyaad wax ko ko ne ko Xuseyn na ne benn ñett yi eh, lu ngeen ci d'accord rek mu ànd ci yéen muy mën a dellu Hijaas mbaa mu dem ca Yaziid ba teg loxoom ci loxoom mbaa boobu ñu bàyyi ko mu dem ci poste yi benn yi ci post yi Eh, jihaad ba ba yàlla dogal li muy ci moom waaye bi ñu waxee bi bataaxee bi ñëwee ci moom Badr ibn Ziyad dañoo wax ne dafa d'accord ni ko waaw loolu d'accord na ci waaye Shimr ibn Dhil Jawshan daal di jóg ni ko déedéet doo ci d'accord mukk te dafa wàcc si ci sa àtte moom ñu mu àndal daal di koy xambaat ni ko dégg naa ñu ne Xuseynu ak Ibnu Saad dañuy toog ci diggante ñaari ñaari ñaari armo yi di waxtaan guddi gépp ibnu Siyaad ni ko wax nga dëgg euh, daal di yabal Shimru bnu Dil Jawshan moomu ni ko demal bu fekkee Xuseynu ak ñi mu ànd nangu ñoo wàcc si sama àtte baax na buñ ko nanguwut waxal Umar ibnu Saad ni ko na xeex ak ñoom bu yeexamtalu nag rey ko moom ci jëmmi boppam te doon buur bi yow te doon kilifa gi rey ko te jiite nit ña léegi daal di bind Omar ibn Saad xupp ko ci yeexamtalu bi mu yeexamtalu ci xeex ak Xuseyn bi Simru ibn al Jawshan ñëwee indi bataaxel bi bataaxelu Ubaydullah ibn Ziyad Omar ni ko yal na yàlla soril sa kër yow day wóor na ma ni li ma ko waxoon yow mii yaa dox diggante mag nangu gi muy benn ci ñett yooyu Xuseyn sàkk Simru ni ko daal danga may wax rek looy def ndax da xeex ak ñoom wala da may bàyyi ñoom Omar ni ko déedéet bàyyil man maa koy féetewoo daal koy teg ci ñi dox ak tànk ci waa arme bi ñi ciy dox ak seen tànk daal buur jëm ca xoseynu ci ngoonu alxemes tollu juróom-ñeenti fan ci weeru muharram omar ibnu saad daldi woote ñu war ginnaaw buñ julee takkusaan jëm ci xoseynu xoseynu mi ngi toogoon ci kanamu xayma ba e, lëkkaayu lam rango jaseem e, gëmmeentu sax ba bopp bi xaw liis waaye mu dégg mbokk mbokkam kenn ci jigéen ñi mu àndaloon dégg coow li daal ñëw yee ko Ousseynou dellu si daal di wax ne dama gént gis yonent bi léegi mu wax ma ni ma euh, yéen a ngi waaj a laxas jëm si ci noonu Abbas ibn Ali daal ñëw ni ko ni ko ni ko gaañ ñëw nañ de Ousseynou ni ko demal ci ñoom laaj leen lan lañ bëgg Abbas ibn Ali dem ci ñoom laaj leen lan leen lan ngeen bëgg ñu ne ko ndigal dañu dikkal ci ni benn ngeen wàcc si ci sunu at ci atte bi wala ñu xeex ak yéen mun leen taxaw leen foofu xaar bi ma waxtaan ceeg euh, Abu Abdillah mooy Xoseyn daal delluwaat ci Xoseynu dellusiwaat ni leen nee na ngeen may ko guddi gi ba mu xool nu muy def ba xam lu mu ci def Omar ibn Saad wax Chemru bnu del Jawshan ni ko loo wax Chemru ne ko yaay kilifa gi li nga ci xalaat mooy xalaat bi loo ci xalaat rek baax na wax nañu ni guddi googu Ousseynou dafa dénk ak njabootam xutba leen ci njëlbeen sant yàlla tàgg ko ci yonente bi ni leen nag ku ci bëgg a dëpp mën ngaa dëpp ci guddi gii digal naa la nga dëpp ndax nit ñi man mii lañ soxla waaye yéen soxla wuñ leen suñu ma jotee rek Eh, am nañ liñ bëggoon kon ku bëgg ñibbi rek mën ngaa ñibbi am nga ndigal waaye mbokk yeeg doom bàyyi yépp marché ni ko mukk yàlla buñ des sa gannaaw yàlla bu nu yàlla woon lu nu naqari ci yow Ousseynou fanaan moo ñim àndal guddi gépp di julli di jéggulu yàlla di ñaan yàlla di toroxlu eh, fas yi bi di leen wër di leen garde bi bët setee ba Omar ibnu Saad di julli suba muy bisu aljumaa di bisu ashura fukki fan ci weeru ci la taxaw nag ngir xeex ak Xuseynu Xuseynu eh, it julli moom ñi àndal ñu julli suba dal di Umar ibnu Saad waajal ab armam Xuseynu it waaj moom ñi àndal ñu daal di jàkkaarloo ci béréb boobu Xuseynu eh, wax nañu ni bi ñu jàkkaarloo dellu na ci ab xaymaam sangu laal gët daldi diwu ñenn nag ci ñim àndaloon it daal di def lu ni mu def am ñu ne waaw yéen lii ngeen def ci waxtu wi lu mu doon ka ñuy wax Xuseyn ka ñuy wax euh, Yazid ibnu Xuseyn ni leen nit ñi day ba may doon gone bi may doon màggat ñëpp xam nañ ni mosuma bëgg ay caaxaan waaye lii ñu def dañ ko def ngir bég ci lii muy bëgg a dem bég ci wujj gi ñuy bëgg wujj suñu doon wujj suñu doon ndax suñu diggante ko xoorul ayn dara neewu fi lu dul dajeeg ñee ñu rey ko Hussein war ci aw fasam daldi di jàkkaarloog nit ñi daldi jël ab kaamil daldi koy teg ci kanam daldi di woote moom Hussein ni yéen nit ñi déglu leen laabire gii ma leen yéen nit ñi bu ngeen nangoo laabire gii da ngeen ci taxe lool da ngeen doon ñu taxe ñu am sax te it du ngeen am ci mën a yor waaye bu ngeen ko nangu wut nag da ngeen dajale seeni mbir ak seeni pexe yépp te fàq te bañ maa xaar ndax man kat inna waliya allahu alladi nasal kitaaba wa huwa yatawalla saali yàlla mooy sama kilifa te mooy féete woowooy baxe mun leen yéen nit ñi seetaat leen seen bopp rek leen seen bopp ndax yàlla na ci yéen ngeen rey ku mel ni man man mii maay doomi doomu yonent bi sinu te tey jii ci kaw suuf doomu yonent néew benn sëtu doomu doomu leen yonent bi sama maam di waxoon na ne waxoon na ma maag sama mbokk Xasan ni ñaar ñii ñooy sangi waxambaane aljanna ndax du ngeen ragal yàlla ndax lii war dox seen seen diggante ak tuur sama deret wax leen ma yéen nit ñi ndax dama leen reyal nit ku ngeen bëgg a fayu ndax dama leen lekkal seen alal ngeen di ko ngeen di ma ko topp ndax dama jam kenn ci yéen ngeen di ma topp jam-jam boobee ñun ñeeku ñu ni cal kenn mënta wax mu ni leen bu ngeen ma bañee te ngeen maa bàyyi ma dellu fa ma jóge woon Xays ibnul Asad Asas ni ko lu la tee mën a wàcc ci àtteb sa doomu bàyyi yi ñoom duñ la def lu bon te doo gis ñoom lu dul lu baax mu ni ko mahazallah yàlla tere inni ustu bi rabbi wa rabbikum min kulli mutakabbirin laa yuminu bi yawmil hisaab yàlla tere yàlla na yàlla busal ci bépp aju réer joo xam ne gëmut ëllëg ñu daal di dox jëm si ci moom waaye foofu yi bi mu waxee xutba bi ba noppi yaram yi dafa daw ba am na ñoo xam ni dañoo dal di fàqe ca mbooloo mi lu mat fanweeri gawar yoo xam ni xarum ñu yesit moom ci la bokk fàqe nañ ca mbooloo mi ñëw topp si Ousseynou ñëw balu ko xàq ci loolu xew xar euh, ni ko it su ma xamoon ni yéen ji lañ am kon ma àndoon ak yow yóbbu la woon ci yesit kon dinaa woon nangu li nga ma waxoon waaye Ousseynou nangul ko ngànt fa loolu